bismillahi dinin addaara yàllaaw sawi taqaat bisika yàllaaw yaa man lawol amru yaas man laa sharika lahu wasiba man sidwaat bisika yàllaaw kii nag daa bokk ci borom xam-xam yi ñu jiite kuréel googu nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Saliou di boroomi xam-xam. mu mu bëggoon laa leeral tuuti ci. wala yëkkati bisimilah kon xam naa liggéey bi comme ni nga ko waxee. Euh, Touba Ca Kanam euh, liggéey mii muy am yëpp euh, dafa am ay kuréelu ingénieur boo xam ne ñoo sofu ci ginnaawam. di ko jàppale ci liggéey yëpp. ci tàmbali bi conception bi ba ba muy yéggee ci fi ñu koy réalisé di ko jébbale. liggéey bii nag liggéey université bi bi ñu ñëwee dañoo fekk. Euh, démembrement bi nga xam ñoom ñoo nekk ci université bi defaroon seen i plan ak seen lépp ba mu noppi Touba Ca Kanam ba mu ñëwee nag ñu ñoom nañ ko bëggee woon ci ñu réaliser ko noonu ñu xaatim ak ñoom convention boo xam ne noonu lañ koy respecté ñoom ñoo indi seen biro de contrôle ñoom ñoo def seen conception architecture bi def dimensionnement bi lépp bi ñu ñëwee nag ba signé loolu ba noppi dañoo jël benn ingénieur teg ko fa recruter benn entreprise teg ko fa ba pare nag lépp lu ñuy def dañuy woo mission de contrôle bi nga xam ne si ci njiitalu suñu maam Thierno ñoom ñi xam ne ñooy coordonné université bi ci bâtiment yi fa nekk yëpp ñu ñëw saytu ko bañ na baax na ñu jàll si geneen wet looloo looloo waral bi ñu bi ñu tàmbalee nga xam ne bâtiment bi mi ngi ci bâtiment majalis si la bokk muy euh, toll ci daa daanaka ñaari junne mètre carré yoo xam ne si ñeenti niveau la niveau bu ci tuuf ak ñetti étage euh, niveau bu ci nekk am na ñetti salle de classe boo ko boolee lépp ci ci kaw bi ci suuf mu am fukki ak ñaar ci salle de classe te niveau bu nekk am na benn bureau ak ak ay toilettes kii euh, wanag gi fa nekk ak lépp lépp lu muy àndal si saytu gros waaw mooy mooy mooy bâtiment bi nga xam ne ci tàmbali ba ba ba yegg ci fin su Touba Kanam lépp loo xamante ni luy lu lu kuréelu université bi tegoon la ne war nañ ko war nañ faa jaar jaar nañ foofu noonu ay ingénieur du ko di ko saytu ba fii mu yegg ci fii nii waaw waaw lañ ci bëggoon leeral waaw waaw li coût bi nag bi bi ñu ñu ko réalisé yëpp ba nga xam ne lépp lu ci dem yëpp mu ngi toll si cinq cent vingt et moom la wax 521 millions waaw waaw waaw xeetu bu am bu am kii nag daanaka diggante bi bëccëg yu ne jaar na fi waaye daal góorgóorlu nañ daal ba tawfeexu sëñ bi ñu doole xanaa mooy équipement bi ñu ngi ko war a équipé yi tamit lépp Touba ci kanam du ko du ko jël nga xam ne waaw du ko jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seyxna Ahmadul Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seexna Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seexna Ahmad al mu ubbee loolu bàkkeeloo ko ci njàngale mu am solo mi nga ci jàngale woon di la nuyu ci tur sëriñ Habibu ak ñi mu àndal liggéey bi di magam alhaaji sëñ Takko moom sëñ Fàllu mi ngi nii toog di jàmbaar lool ci liggéey bi yoo xam ne da ciy jëf te ay waxam néew ci lool waaye ku sonn ci liggéey bi Touba Kanam la mbooloo mi àndal ñëpp di nuyu sëñ Amadou Badawi yi mi nga xam ne moom nga tegoon liggéey bi te moom mooy sa jëwriñ ci liggéey bi te moom it jàppale nañu ci bu baax a baax ci wet yëpp di na ñoom ñi nga xam ne ñoom nga fa tegoon di leen saytu liggéey bi te ñoom it ñu àndoon na ñun liggéey bi te yaatal nu ca bu baax a baax ni ko dawo da wilaan waxee rek lépp luñ te ma soxla waa ko ànd ak ñoom jàppandal nañ ñu ko teg nañ ñu ca yoon wa te yàlla dimbali ñu ci ba nañ lañ tegoon ñoom non mu yañ tegoon ne moom lañ bëgg ku ko liggéey bâtiment bi Touba ci kanam defee na ko noonu defee nañ ko noonu ñuy sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di la sant bu baax di la sant di la ñaanal di santaat bu baax nag ci tawfeex ji nu am ba ànd ak yow liggéey bi ndax bi nga ñëwee li gën a doon sa itte ci liggéey bi nga tàmbalee ko mooy daara ji nga xam ne sëriñ tubaa naaraloon na ko boppam yéeneeloon ko boppam bëggaloon ko boppam te jaayante woon ko ba mu nangul ko ko lil Moustapha lii banal xudduusu madrasatan biha yasul asa wal jël wal kamal loolu tegtale ne madrasa mënutoon a ñàkk ci Touba yow lañ ko fi bàyyi loon nag alhamdulilah bi xam ne ba nga ñëw def ko ndax sëriñ moom léppam la mu ko waxee waajal na ko ba teg lu mu génn gut ak génn ma jotagut waaye lu dafa ne waxoon dafa jot ma génnee ko dafa mel ne kon lii dafa doon loo xam ne ak génnam day doo ko jot mu jaarale ko ci yow kon ñu ngi sant bi nga xamee ci njiitu Serigne bi ak tubaa ci kanam am nañ yitte ak pas-pas ak yéene ànd ko ak yow tax ñu ñëwoon jëloon engagement taxaw taxawal fa bâtiment bii suñu borom dimbalu na ba tey mu àgg ba ñëw di la ko jébbal loolu sant nañ ci yàlla lool sant ci sëñ Touba ci sant ndax buñ ko mënee yawa ndax fu tubaa ci kanam àgg tey yawa kon ñi ngi lay sant bu baax te di la ñaanal di ña suñu borom yàlla na fi suñu borom yàggal lool dama la waxoon ba ñu koy doog a tàmbali ci ci say wax ni wàcc wàcc ci àddina ak ñàkk soxla ci dund ba nga naan su ma xasee tàmbali rek li ci des moom su ma demoo ma ne la ëpp naa def mbàkki toogal ba lépp ak nga nga ubbi ko ñu tàmbali liggéey bi te nga tàmbali leneen te loolu ba tey moom la ñuy ñaan nag yàlla na ko yàlla defal sëñ Tuubaa sa jëmm ji yàlla na ci yàlla us taalibe yi yàlla na ci sëñ Tuubaa feeñal kéemaan bàyyi la fi ndax sagub yoon wi nga sagub lislaam yi ñëpp la ittewoo yal na la fi yàlla bàyyi alhamdulilah bi alamin sant na bu baax ndax sëñ bi dong nga jëm te ci nga nu jëmee ma ko daan waxee rek sëñ bi ci waxam daa sëñ bi daa mas a wax ne yàlla yonente bi de xaasal nañ ma ci seen bopp mhm. waaye fekk nañ ma itte waaye yow sëñ Muntaxa it sëñ Tuubaa xaasal na la waaye fekk na la itte foo àgg sa ittee la fa yóbbu ma ne mag ñaandoon na sëñ la fekkoon duñ la ëppale la waaye sëñ bi tey ba xam naa ne ne woon Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bu ma fekkutoon lu dul jaww ji ko daa tiim sama pas na ma am ci moom li ma bëgg loolu la sëñ bi waxoon Cheikh Ibrahima Fall waxoon sëñ bi ne ko kama seet su ma ko gis toon it ñu ne ma fii lañ ko denc la ma bëggoon danaa ko ci am ba àgg fi àgg waaye yow mii itam foofa nga nekk wóor na ma ne fa nga àgg ci sëñ bi lu mag ñi am sëñ bi am nga ko sëñ bi te sa pëstee fa la ko àggale kon nag ñëpp ngi ñaan nga yàgg te wér lool te lépp loo yéenee defal sëñ Tuubaa na nga ko def te ànd ko yow sa sa dund gi daal yàlla na doon dund kiimaan goo xam ne ñëpp dañ naan lii wawutoon mën a nekk ci bàkkib sëriñ Tuubaa sagob yoon wi nga sagob lislaam nga Tuubaa ci kanam gépp ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la ñaanal liggéey bi sëñ Ayib dana ko yëkkat teg ceeb bi ci sa loxo ak këy yi nga ñaanal nu ñu ñu diglu ndigal la leen ndigal loolu joxaat ña nga ca bu dee waajtaayu màggal gi it ñu ngi ci Cheikh Mamadou Bassir mi nga ci ko dénk woowoon nañu fan yi waxtaanoon ci ci ndoxum taw mi ci dëkk bi te jaaxal ñëpp ci mbedd yi ba itam Touba Ca Kanam ma nga ci tàmbali na ca ma nga cay def ab liggéey nga ñaanal nu ci bu baax bala ñu àgg ci màggal ga ñu def ñu am ci ndam xëy na dana jafe ndax ginnaaw dañuy ngacc muy taw te yàlla moom coobaram la jël waaye nañ ci nekk alhamdulilah kon nañ ci nekk rek nga ñaanal nu ci bu baax bu ñu ngi ciy sant ndax amoon nañ ñeenti oto yi camion yoo xam ne Touba ci kanam bi luyee ko luyee yëpp ñu ngi ci nga a baax ba loolu lépp yàlla defal na ci tawfeex ci màggal gi te nga yàgg fi loolu te ànd ñi nga woon commission bi àndoon ko maam Thierno Ndiaye ñoom ñëpp ñi ngi ci jataay bi ñoo doon taxaw liggéey bi ak ingénieur yi ak waa Touba ci kanam gépp nga ñaanal leen yàlla defal leen ci tawfeex ak ndimbal ak ngërëmu sëñ Touba jërëjëf Mbacke maa ngi jégalu ci kàddu courant bi léegi kii mooy waaw waaw. plomberie bi mooy mooy affaire ndox mi yooyu waaw. transfert transfert baa ngi waaw informatique yeeg. surveillance yooyu yëpp yëpp waaw yëpp waaw. ministère yi baa ngi ministère yi. bu nekk daal yëpp bu ne bu ne lam lañ ciy def. moo moo moo moo moo def foofu yi waaw ñu ngi koy jël jëbal wala yo si bopp lépp rek euh, ngir jëm sëñ bi nga xam ne moom ngay liggéey rek ñu ànd ko yow euh, ñu ñaan su boolu àgg ne ko suñu waaw si am waaw moom de alhamdulilahi rabbil alamin gën a yeesal suñu lépp jaayante jiitu ji sadde suñu lax saay fa seeni liggéey ànd ko yéen jiitu ji tegu ci sax dakk nag ci eh, liggéey sëriñ bi eh, ci sama waxi taalibe dama daa wax ne eh, sax dàkk ci jaamu yàlla liggéey la ko sëriñ bi sax dàkk ci liggéey sëriñ bi jaamu ko yàlla waaw ah, loolu foofu doo loolu neex du neex du lijjanti kon bis ni tey maa ngi gën a yeesal sama jaayante di gën a fedd sama laxsaay di gën feeñal nag sama yéene ji xam ne yéen laa ca jiital ak lu ma ci mën a bëgg rek ba ma sax ngeen jiitu ma ci ma topp seen gannaaw euh, fi ñu tàmbalee mooy liggéey bi euh, mooy Touba ci kanam gi euh, di di di di di di di pàggatu fu sëriñ Touba jógul fenn pàggatu fu sëriñ am tawféex liggéey loonu ko ndax liggéey bi yëpp ci kanam eh, eh, eh, lépp pàggute fam la ak taw fee li ti nga xam ne moo ci su suñu moo di lu bari ci doxinu adduna lu bari ci li weesu ci histoire rek lay mujj waaye nun la nun fii lii liggéey bi Sëñ Tuubaa bii la cay suñu jom di suñu gor di suñu positif di suñu yitte lépp nañ ko ci dem nañ ko ci def ci suñu dund gii te faggul ci njaboot gi ñëw ëllëg ñu taxaw taxawaay boobu ba bis biñ ci ba bu mu doon histoire mukk nañ ko nañ ci nekk ba bis biñ ci ba ci kanam sëñ Tuubaa noonu la loolu loolu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jóg suñu bopp ba noppi waaw dañuy jóg suñu bopp suñu yéene suñu sellal ko suñu positif ñu wéral ko suñu yitte ñu dolli ko suñu taxawaay ñu yokk ko suñ këm kattan fas yéenee sax dàkk nag ca gis sëriñ bi rek xool sëriñ bi rek naan xool sëriñ bi rek buñ ko gisee bu buñ ko defee nii ñu ko waxee bis bañ ci ba rek da lay day dox ba bis bañ ci ba du mujj ci histoire mukk te lu bari ci àddu dox na histoire lay mujj kon lii moom la ci suñ jom di suñ gor di suñ positif di suñ yéene di suñ yitte di suñ taxawaay nan ko def lépp ci liggéey bi di di dox di dox ba suñu dund jeex ñe wuutu ëpp lu ci taxawaay liggéey bi dox di dox di dox ba bis ci boobu ci kanam suñ tubaab loolu mooy moo loolu loolu loolu loolu man dañ koy fas dañ nañ ci jugal suñu bopp fasal ko suñu njaboot muy muy muy di wéy am naa ci nag bu baax a baax a baax a baax fa tabaarakallaahu liggéey bi taxaw taxawaay bi mat na sëkk rafet na sell na fa tabaarakallaahu lépp nag dama koy daal delloo si nag ci sëñ Abibu mii du du du loo xam ne dama koy dama dama koy gërëm ak dama koy dara dama ko jàng ba xam ko xam nga ma ko njal bi xamoon naa lépp lu baax la li jot a xam lépp lu baax xamoon naa ko waaye nag eh, dama ko jàng ba xam ko noonu nanu nanu gën a ci taxawaay fii fii toll nañ ci gën a sant yàlla bu baax a baax a baax gën a sant yàlla gën a sant Sëñ Tuubaa ci fàggute bi nga xam ne fàggul nañu ko ak tawfeex jure yi nga xam ne defal defal nañu ko euh, ci sëñ Abibu mi ndax taxawaayam bii du taxawaay nit nit kese taxawaayam ko waaye waaye seet na ko piste bi mën na sëkk piste bi mën na sëkk yitte ci réew na lool ngor gi mat na jom gi mat na dogu gi mat na itam lépp ndax delloo na delloo na lépp ci sëñ loolu tëgguma ko dama wax li dama ko jàng ba xam ko ci moom moo tax ne kon liggéey bii xel daal na ci na sama xel daal na bu baax a baax waaye ngeen xamee ko noonu sëriñ nun nan xool se bi rek nan xool sëriñ bi rek bu ñu xoolee sëriñ bi rek suñu kem kattan di ko jéem a xam di ko jéem a dund suñu kem kattan eh, alhamdulilahi rabbil alamin du kenn fu suñu borom nan góorgóorlu bu baax eh, sëriñ bi mooy mooy yoonu yàlla rek amul yeesul mankiwul sëriñ bi mooy yoonu yàlla rek sëriñ bi mooy yàlla na yàlla rek jox na yàlla jox na yàlla léppam tënul dara lul boromam sëriñ bi tënul dara boromam ak yonent bi ñu ko tegtal ci biir loolu itam gaa yi yàlla yëpp ca malaayka ya ca yonent ya ca gaa yu baax ya yëpp jox leen seen aq seen diggante jox leen seen aq ndax bokk gi bokk ak moom se seq gi seq seq ak moom seen borom jox leen seen aq ba mu mën sëkk waaw kon sëriñ bi doxin bii da la ma ci yéene mooy nu bokk ci ñi ñoo doxe ci wàmmatug suñu borom ñuy doxee wàmmatu suñu borom nga xam ne ñun dara ci yéen bopp waaw waaw da tàmbale ko ci malayka ci yonent yi ba ci sunu sëriñ bi bu tabaate بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتبته بلا انقطاع بفضل منك يا الله